kon mbokk mi sëriñ bi nee na da nga bàyyi xel xàq yi dox sa digg ak sa dëkkandoo ci kër gi ci quartier bi ci dëkk bi mu ne bul doxe sañ-sañ bul doxe doole bul doxe màttay bul topp sa bëgg ba di ko xañ bëggam aw nit bu ñu bokkee mbir nag la ñu cay def xàq la ci ñoom ñépp ci ñu war caa diisoo yow mi liggéeylu muy employeur bi xàq la ci yow ci nga jox ki ngay liggéeyoo ki ngay liggéeyloo payooram balaa aw ñaqam a fendi yow mi ñuy liggéeyloo muy employé bi xàq la ci yow ci nga matale engagement yi nga jël yow commerçant bi xàq la ci yow ci nga matale en xàq la ci yow ci nga bañ a naxaate wala wuruj wala dugal genn njumlan ci li ngay jaay ngir loo lekk ci riba lu mu tuuti tuuti sallallahu taala alayhi wa sallam nee na déeful nangu sag jaamu yàlla ñeent fukki guddi yow chauffeur bi tey def transport xàq la ci yow ci nga sàmmonteeg li la code de la route wax ay bakkan nga yor te bakkan dafa foor ci yàlla ndax nee na man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasadin fi l ard fa ka annama qatala annaasa jamian benn bakkan rek nga xañ ko dundam te tëroo ko fenn wala ci ak ji ak yàq ci kaw suuf mu ngi mel ni nga faagaagal doomu aadama yépp kon war ngaa ànd ku yar ak dal ak teey ba àgg fa nga jëm ak jàmm te bañ a xaj sa moroom xàqam ci kaw yoon wi yow waajur yi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na doom dina layoog bàyyi ci turu neexu du ko tuddee yow man qiyaam kon xalaatal sa diggante ak moom boo sàgganee ba xamul dara ci alquranul karim xalaatal sa diggante ak moom boo sàgganee ba xamul diineem xalaatal sa diggante ak moom boo xalaatal sa diggante ak moom boo sàgganee ba yoroo ko yoroo lislaam xalaatal sa diggante ak moom boo sàgganee ba jikko yu ñaaw yi ak melokaan yu bon yi xew ci jamono ji fëkk ko muy xàq yu rëy yoo war a batale yow góor gi yàlla dénk soxna sëriñ bi nee na nga xam ne xàq la ci yow ci nga dëkkal ko dëkkoo ko dundal ko wodd ko yërëm ko wormaal ko yiir ko suturaal ko di ko digal jaamu yàlla te di ko ci saytu yow soxna si sëriñ bi nee na na nga xam ne xàq xàqi borom kër diis na lool sallallahu taala alayhi wa sallam nee na bu sa yaramu borom kër feesoon del la ki góom fu ne di xel li dëtt mu digal la nga mar ko ba mu set ngeen baal ma ci waxin wi du tax nga dab xàqam kon soxna si xàq la ci yow ci nga warmal sa borom kër jox ko cër bu mat sëkk di déglu ndigalam di moytu cereem di dabu bànneexam ci li neex yàlla te sallallahu taala alayhi wa sallam nee bu la sa borom kër gërëmut yàlla du la gërëm kon bul xalaat mukk yàlla bég ci yow lu dul ne da sax ci bégal sa borom kër ci li neex yàlla yow imam bi sëriñ bi nee na mi ngi lay fàttali ne xàq la ci yow ci ngay xamle di yeete di fàttalee te bañ cee tàyyi mukk ndax yow la julli ji jital teg la fi seen kanam kon del digle di tere di arto te yàlla rek tax yow mi nga xamne aw nit dañu la yaakaar jox la seen bop ngay seenu serigne di seen kilifa serigne bi neena mi ngi lay fatali ne haq la ci yow ci nga tegg leen ci siraatal mustaqim di leen won deug di leen joxe yàlla di leen xirtal ci yàlla waxtu wu ne ta bañ leen xirtal ci sa bop ta bul xeblu sa bop mukk wala yablu sa bop mukk ci dara ji aduna ak alali aduna taalibe bi nag bu ko sëriñam gënee bëgg àdduna ak alali àdduna daf koy jaaxal lool yéen ñi ñu dénk suñu mbiri àdduna la dale ci président de la république ba ci chef de quartier bi sëriñ bi nee na mi ngi leen di dollee dénk te di leen bàyyiloo xel ne waxtu wu nekk dañ leen a di leen bàyyiloo xel waxtu wu nekk ne dañ leen a wóolu doyloo leen jiital leen ci suñu mbiri àdduna xàq la kon ci yéen ñëpp ci ngeen bañ a tas yaakaar ji taxoon ñu dénk leen ndénkaan nag lu foor la jité tamit lu metti la lañu la denk xàq la ci yow ci ngay samonté ak waxtu ne la tax ñu denk la ko di ci dox di ci wax sa yëngu bëpp nga jëmele ko ci njariñal ñëpp yow mi jité bëggal nit ñi njariñ na la jaral ñëpp am nga ñak ñëpp suur nga xif ñëpp mandi nga mar ñëpp wodd nga rafle ñëpp nekk ci lay ngay doñ doñi guddeeg becc ngir lu leen di jariñ ci bir tombu bobu serigne bi neena mi ngi ciy dénkaale ñëpp ñiy yëngu ci wàllu politique ci suñu réew mi ñu jàmmoo di waxtaan di diisoo ci liy jëmale kanam réew mi segam yittee réew mi rekk leen tax di yëngu développement nag jàmm rekk la mën a lay tayoo bu jàmm amul dara du séqib jéego jëm ca kanam mbokk mi sëriñ bi nee na na nga xam ne sunu environnement bi tamit dafa am xàq juñ war a matale muy li nu wër lépp te nuy dund ci biiram ñu di ko wooy laa natu yo rabbana maa xalaqta hada baatila yàlla sakkantuwut foowantuwut lu mu bind lu ne am na lu tax kon xàq la ci ñu sàmm gàncax gi garab yi foore yi rabi àll yi jur gi suuf si ndox yi lu nu ci faagaagal lu ne rek dina feeñ ci sunu dund ndax dafa am lu ñuy wooye interdépendance ci sunu biir lenn lu ne dafa am ci moromam mu mu aju mooy waral li ñuy wooye équilibre de la nature dara du ëpp dara du yées yàlla lenn lu ne na mu war a mel ak na mu war a toll la ko sàkke